ñu ngi tàmbale ci sunu nuyoo ku tedd ki di ko yónnee ci jëmale ko ci moom sëñ Muntaxa di ko siyaare di jàlleele siyaaru bépp taalibeb Gabon ci sunu sang bu tedd bi tey nag dañoo ñëwoon fii fekk si waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam te ne moo yore jumaay Tuubaa liggéey fekk leen ci liggéey bi nga xamante ni yaakaar naa ne umpale umpaleetul benn taalibe ci ci ci ci àddina bi tey jii nag euh, daayira bu Gabon yabaloon ma tey jii ma ànd koog sëñ Abdoulaye Niang mi ñu indi barkeelu bi nga xamante ni moom lañ ko doon indi di ko teg ci seen loxo di ko barkeeloo ci xéewal yi nga xamante ni moom la jox mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi fii ci weeru koor gi fii ci Touba. kenn ku ne boo ñu lu fii teg sa bëtit gis nga ko ci écran yi gis nga ko ci internet bi gis nga ko ci télévision fu ne xam nga ay jul ji woor ba ngoon nga dajal leen di leen jox ndog yoo xam ni bu ñu toogoon seen kër mënuñu ko am loolu loo fa def rek xeeb nga ko moo tax tey jii daayira Gabon nag am barkeelu bu ñu amoon yónnee woon ko te liggéey ba sëñ Badou Sène yoroon ko foofu ak Moussa Dramé ca Libreville ca Port-Gentil sëñ Xaadim Dieye yoroon ko ma ànd ko nag moom waaye man daa fekk maa ngi fii Sénégal tey jii ñu dajale loolu jox ñu ko ñu indi ko fii di ko jébale waaye wax dëgg yàlla jébale gi sax bi mu egsee bi fi man dama dañ cee wax naa ko léegi sëñ Ablaat ma ne ko dama cee xaw ruus ndax rus gi mooy soo yore àddiya di ko indi fekk ñu fekk fa loo xamante ni soo yoroon tey jii ab milliard da koy xeeb tey jii bu ma waroon yóbbante addi yi sax dama koy yóbbante ndax lii ma fi fekk moom lu ñu liggéey rek doyul yónnee leen ko lu ñu liggéey rek doyul kon nag ñoo ngi ciy profito di ci soññ suñu mbokki taalibe yëpp yi nekk Gabon ak fu ñu manti ne ci àddina bi rek ni lii lu mat a barkeeloo la lu mat a bàyyi xel la te kenn bañ a xeeb dara carte yi ñuy joxe. di ko séddale muy daayira bi kenn ku ci war ngaa fexe fa nga nekk sa tour bokk ci ci liste yooyu ndax képp kuy woote moom jëmale ci Sëñ moom fexeel ba bokk ca loola rek ñu yóbbaale sa addiya waaw waaye bii de moom ah ñun waa daayira particulièrement Port-Gentil gi nga xamante ne day maa fay vice président ba président ba di Alaaji Omar Sall Alaaji Omar Gueye ah am nañu loo xamante ne dañ bu yeggee danañ ko teg seen loxo sëñ Badou Sène tamit wax naa ko léegi jokkoon nañ en direct waaw wax dëgg yàlla soññe bi daal mi ngi noonu mun ndax dañoo bett waaye daal xol bu sedd daal lay waxee foo xam te ni daal ñun ñun daal liñ ci li ñu yéene fii daal teg nañ ci loxol sëñ Tuubaa ndax moom mooy sagal ñëpp waaw kon ma jox sëñ Ablaat ña mi ma àndal moom it mu am tuuti lu mu ci sànni muy ab soññe rek. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen nuyu yéen ñëpp. di leen siyaare bu baax a baax di jiital ci néew beeg siyaar bi sëriñ taxa Mbàkke di ko ñaanal lool mu yàgg fi lool tànd ànd ko wér ba lim yéene lépp ci liggéeyal ko sëñ Tuubaa mu def ko ni mu ko bëggee ak ni ko soobee lépp it ko ak moom di jégalu bu baax it kàddu yëkkati waaye lépp day jëm ci soññee ndax fii moom képp ku fi jëm képp ku fi ñëw da nga soññ ko ndax liggéey bi nga xam ne fekk moom lañ fi fekk muy liggéey boo xam ne nag liggéey féetewoo ko kaw. ndax fii ci Touba di ci biir jumaa ji nga xam ne waaye fu ne lay jógee di fi ñëw kenn ku nekk fa nga fa ngay jógee jaar fi bëgg a ndogu bëgg a euh, def lenn nag leneen door a jàll liggéey la bopp fépp fépp fépp foo xam ne taalib sëñ Touba nga fa war na caa góorgóorlu bu baax a baax rawatina nag suñu bokk yi nga xam ne ñooñu yebal fii tey ñu bokk ak ñoom Gabon Port-Gentil ak Libreville ak Franceville ak mbooleem rek fépp boo xam ne taalibe nga fa ca Gabon na nga ci góorgóorlu bu baax a baax a jàpp ci sa kéemtulaay kàttan ndax ci liggéey yi nga xam ne liggéey màgg yi ci la gën a ci ci la ci la bokk kon nag nañ ko gën a waajaat bu baax a baax a baax a baax te gën koo fonk te gën ko di bàyyi xel bu baax a baax ndax liggéeyal Sëñ Tuubaa moom amul amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la jëm la am kon nag nañ ci gën a góorgóorlu baax rawatina loo xam ne nag day weeru koor lépp lu waay def nag moom baax na waaye rawatina nag loo xam ne moom du ko def ci weeru koor ndax lépp loo xam ne def ko ci weeru koor bu dee bu dee bu dee bu dee benn dañ la koy fulal bu juróom-ñeent waaw kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax gën cee gën gën gën ko fonk gën gën ko waajal bu baax waaw noonu nag wax dëgg yàlla am nañ mbett nga lool ci ci ñëw gën fi ñëw ndax euh, wax dëgg ay borom positif lañ fekk waaw te fekk nañ fi liggéey ba ni ko sañ aas waxee léegi rek képp ku fi ñëw da nga soññ ko waat bu baax a baax buñ gënee buñ delloo nag bu soobee yàlla danañ ci gën a xar suñu tànkatu koy ndax euh, ah, kaw suuf moom dara desitu fi lu liggéeyal sëñ Tuubaa waaw comme li mu wax ne xafistuma sinaani dafaatiri falaa takkul an xalimati bi faatiri loolu rek moo fi des kon nag yàlla nu yàlla nangul te li nu yéene it te bëgg ko yàlla ñu suñu borom mottali suñu yéene ba ni ko ni ko bëgg nu defe noonu ñoo ngi sant bu baax ci leen ñaanal nag seen i taxawaay ndax lii ngeen def kat ñëpp ko defal ndax ñëpp la waral ñëpp la waral kon nag li ngeen bëgg lépp te yéene ko ci liggéey bi yàlla leen sëñ Tuubaa defal lu ci kaw seen njort ci barke sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul noo ngi jéglu bu baax a baax nag ci kàddu yi bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, sëriñ As Gueye ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Abdul Ahad Ñang di leen nuyu ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ak euh, kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi di sëriñ bu Buso ak sëñ Abdul Ahad Buso sëñ Abdul Mutalib ak sëñ Abdul Ahad Buso maam Asta mi euh, jiite commission sociale et relations sëñ Abdou bu Bousso di responsable communication ak ñi fi nekk ñëpp di am mbégte bu baax a baax ci dalal leen ak it di sant ci jéego yi ak addiyee yi nga xam ne indi ngeen ko ngir fekk suñu ci liggéey bi nga xam ne ñun ak yenn ci am képp muy liggéey bu Sëriñ Tuubaa ni nga ko waxee ndax euh, jàpp naa ne euh, addiyee yu jógee foofu ci Gabon ñëw ci liggéey bu Sëriñ Tuubaa fii ci koor gi suñu fàttalikoo suñu yaram war naa daw ci sëriñ bi ba mu nekk foofu ci Lambaréné nga xam ne waxtu koor jot na dog jot amut lum doge muy rocc ay xobi garab di ko tëcc tëccal ba dara jàll ngir mu doon ak dogoom tey jii fii ci jumaam ji lu man ñetti junniy nit ak lu topp di dogendoo fii te loolu mooy jumaa ji rek loola Euh, lu yéeme la loo xam ne euh, xel war naa dal ci liggéey bi kon ñi ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm di la yóbbante nuyoo nag ci jawrin yi sëriñ Baraka jawrin sëriñ Baraka barki dem rek euh, sëñ Ibrahima Ndiaye mii nga xam ne soxnaam doomam Imaam Diop da ko faa yoroon mu wàññiku mu jaar ci ñun ci suñu affaire ngir ñu ñu woo sëñ Baraka. wax ci moom ngir ñu taxawu ko mu ñëw dañ koo taxawu taxaw yi nu rafet daggal ko biyee toppatoo ko ba mu ñëw te loolu it occasion la ngir ñu wax ko sant leen ci loolu lu wér la kon ñi ngi nuyu sëñ Baraka bu baax a baax di nuyu sëriñ Baddo sëy ah, di nuyu sëñ Ibrahima Dramé waaw di nuyu tamit alaaji sëñ Tàkko alaaji sëriñ Tàkko Seck di waaw ah, moom it di ku fonk jumaa ji wax dëgg yàlla ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem waa Lambaréné waa Port Santé ak waa Libreville ak dëkk yi ci des yëpp ndax xam naa ne euh, donte xëy na am na dëkk yoo xam ne mën naa am tabbiwuñ ci liggéey waaye ñëpp ku ko ci yëg da ci gën a tabbi coordination bi gën a yaatu kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu daayira fa nekk yëpp ni ko noonu waa kër Fallu Gabon yi Baay Fall maa yomba ñëpp ñu ngi leen nuyu ndax euh, bi nga xamee ne Moukhaddamatoul Khidma yabal na fa Euh, délégation ngir ñu doon dem doon gëstu tànk sëriñ bi moo xam biñ demee ba tegu ci loxol suñ baraka ak ñim àndal ci ci Libreville taxaw nañ ñu taxaw bu am solo ci fànn gu nekk biñ ñëwee Lambaréné noonu biñ ñëwee Port Santine nag dafa rawati yow mii yaa suñu njaatige foofu ànd ak ñun ci fépp loolu it occasion la nii ngir ñu ñu sant ko ndax duñ suul jëf dangeen ngeen ñëw mel na mbir mi seen mbir la la ca war lépp ngeen def ko loolu tamit lu am solo la loo xam ne jàpp naa ne liggéey bi bis bu bis bu àggee nga xam ne si njiili mi moo koy coordonné ñaari parti yi ci diggante bi rek moo ñu desee te xam naa ne incha allah bu yi jàllee danañ ko danañ ko mottali dana doon lu amal amal solo jullit yi kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ni nga ko waxee tamit ñi ngi ñi ñi ngi ñi ngi soññee di tàllal loxo jàpp naa ne su information bi gënee tisaaroo rek ñu nos ko dana doon loo xam ne eh, luy am njariñ lay doon ndax kat Sëñ Saaliw dafa dafa doon dafay wax dafa doon wax ne suñ biir yi bu mu yitteel suñ biir yi bopp yi lu ciy dem bu mu yitteel nañu suñ biir yi bàmmeel yitteel ndax loo ko fa defut doo ko fekk te occasion la ci yu mel nii nga mën faa jiital loo fay fekk jëf amee na solo fu nekk waaye fii ci jumaay Tuubaa la gën a sakkane loolu nag kon occasion boobu wax dëgg yàlla ñun taalibe yëpp lañ ci yéene ñu jariñu ci comme ni niñ niñ ci yéenee suñ bopp kon yàlla ñu yàlla defal mu doon jëf joo xam ne seytaane du ci amu yoon te duñ ci gis suñ bopp te sëñ mi nangul ñu nangul ñu jëf ci ci darajee xaadim rasul ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan suñ borom mu defal ñu paju ajo te jafe-jafe yooyu nga xam ne moo nekk Gabon yëpp suñ borom jeexal ko takk taalibe yëpp dellu ci seen sago seen liggéey gën a baax ba ñu am addiyee ju baax a baax a baax ju bëree bëree bëri ju ñu mën a liggéeyal sëriñ bi di sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw yóbbante bi ma doon liggéey bi daal fi liggéey sëñ Tuubaa. kenn ku ne fi mu da toog sa kër. ñu la fay fekk ndax nanguwuñu dajoo fenn. waaw tax ma loolu neexul ci taalibe bi. ñoom nag ñu ne ñoom boo demee daal nee sëñ bi nanu ñaanal ñu mën a dajaloo di liggéey sëñ Tuubaa.